cey cey ay mm. billaahi mbokk internet yi histoire bi may waaj a tey su ma leen ko waxee billaahi man ni ma jommee biig ci guddi ba tey nelawuma dippi ba ma déggee problème bi ba tey sama yaram dafa summeeku yéen tamit seen yaram noonu lay summeekoo maa ngi leen nuyu di leen ziyaar di bég ci kii benn paa la paa bi am na 62 ans paa bi nee na ma bi mu nekkee xale am ay environ moom tamit ay 15 ans 17 ans nee na dafa mës a génn am benn ndaje bu mu demoon nee na benn kilifa fekk ko fa di waxtaan ak moom naxtaan ko ba yóbbu ko ci benn milieu daal di koy violer nee na da koo nax naan ko kaay ñu essayer nga xool kaay ñu essayer nee ba mu ko essayer ak kooku kooku daal di koy violer nee bi ko kooku violer nag nee na foofu la ko mujjee defee ci dundam maanaam mu commencé ndaje bu amati bu ko vieux boobu bu ko kilifa googu invité nee na mu daw nee na du du du ñëw mu jigi mu koy daw di ko daw nee na ba mu ba mu gënee nekk xale la nee na àddina di dox di dox ba mu takk jabar nee bi mu takkee jabar di sëy ak jabar ji nee na mook jabar ji am nañu ñaari doom nee na jabar ji buy bu nekkee moom ci moment d'intimité day jël benn appareil di ko ko utiliser lee ci ginnaaw maanaam xam appareil boobu jigéen ñi nga xamante ne dañuy faral di jëndi ay astuce xam nañ ko nee na ndaw si day jël appareil boobu nga xam ne dafa yor forme sexe góor nee na di ko ko utiliser lee ci ginnaawam te nee na comme bi mu gënee nekk jeune pratiqué woon na ko mais nee na boobu la njëkk boobu la mujj ba ni mu amee jabar nee na jabar ji nag day ñëw jël appareil boobu di ko ko utiliser ci ginnaawam nee na affaire bi neex ko parce que jabaram la nee na maanaam da ko doon defal xeetu baax baax bu ne ba essayel ko boobu nee na mu nangu nee na jabar ji nag xam na ne jàpp na sawaay poñ maanaam nga def benn affaire soo ko defee nga xam ne kii lii neex na ko nee na nag jabar ji continuer à chaque fois bu ñu nekkee ci moment d'intimité nee na jabar ji continuer di pratiquer appareil boobu di ko ko defal ci ginnaaw nee affaire bi dem ba neex ko ba nekk virus ci moom nekk vice nee na comme ni mu ko découvrir étant bi mu nekkee xale nee bi mu demee nag ba affaire bi neex ko à chaque fois buy sekk ak jabar ji rek moom sax mooy demander jabar ji pour mu defal ko ko nee na jabar ji toog ba benn jour nekk ak moom ci moment d'intimité di ko ko defal nga ne jabar ji ne ko mais yow comme lii dalaa neex pourquoi pas ñu koy def ñu commerce commercialiser ko maanaam ma wutal la ay client clients yi di ñëw di ko sekk ak yow ñu ñuy fay ñu seddoo ko subhanallah wal minnal wakiil ndeysaan sama gaay yi au mu bañ mu daldi nangu cey ñu naan kafe sama gaay tay tey metti na de nee na mu nangu jabar ji di ko wutal ay client client yi bu ñu ñëwee sekk koog moom nee na ku sekk ak moom ba pare cinquante mille francs nga koy fay cinquante mille francs ma ne ko yow sëñ bi client yi bu ko soxna si wutee fan ngeen koy sekkee ak yéen seen ñaari doom yi nga xam ne ñoo ngi ci kër gi mu ne ma soxna si billaay 62 ans voix bi sax dangay xam ne kii bi muy wax ak man téléphone billaahi am na lu ko metti mu ne ma soxna si su ma wutalee client xale yi duñu mësa a sib ku dugg ci kër gi it doo xam ne mu demee parce que moom ci néeg bi la may bàyyi moom génn toog ci saal bi bu client yi ñëwee ñoom ñoom fekk ma ci biir néeg bi moom soxna si mooy tëj bunt bi ba pare toog ci saal bi léegi su xale yi ñëwee buñ ko nee ana suñu papa danaa leen seen papa dafa am gan day waxtaan te loolu c'est raisonnable ndax xale bu yaru bu ñëw bu ne bu la laajee kilifaam nga ne ko dafa am ngan day waxtaan du du amati accès ci néeg bi danaan sam papa dafa am gan naa ko may jàmm ba mu waxtaan ak ganam ba pare te nee na fekk te yoo waxtaan bi mooy client yi dañuy ñëw sekk man ci ginnaaw après dem te nee na kat soxna si mooy encaissé xaalis bi nee na ma faatu billaahi dama sonn nee ma man xam nga lu ma jaaxal ba ma woote wallu mooy ndaw si su ma demee bay bañ sax ndaw si buñ day bàyyi ba sekk ak man moment d'intimité nee nam foofu la may jàppee ci point boo xam ne lu ma wax rek dama naan waaw après ma ne ko mais yow malgré mi ngi lay wutal ay clients góor yaag soxna si seen moment d'intimité yéen a ngi koy dund mu ne ma dara changé wu ci dara dara te suñu moment d'intimité ci lay profito di ma manipuler di ma defal ay affaires yoo xam ne daf may jàpp ci point yoo xamante ne soxna Fatou lu mu ma wax waaw laa ci teg te nee na su ma ci tegee waaw su ma jógee dama koy exécuter comme ni mu ko bëggee nee na ay kilifa dañ fay ñëw nee na ñi nga xam ne nag dañoo yor xaalis torop torop torop ñooñu cent mille francs la ñuy fay nee bu ñu fayee cent mille francs ndaw si jox ma cinquante mille jël cinquante mille nee na noonu la ñu dëkkee nee na depuis pendant des années ndaw si loolu lay dundeek man maanaam daal ndaw si man lay jaay ñu bokk ko man ak moom di dund nee na ma soxna Faatu am na ci boo xam ne dama xëy mu ne ma demal sama benn xarit nee na dalaa soxla xaritam bu jigéen nee na ma dem nee na man daal comme xarum yar lu ma soxna si wax loolu laay def te am nañu ñaari doom nee ma dem wuyu xaritam bi ay waay sama gars yi ba mu wuyu xaritam bi tëtëtëtëtëtët ay bi sama gars ñu naan tuuti bala ma leen wax ba mu wuyu xaritam bi yëkkati ngeen sama gars yi nee nañ mu dem wuyu xaritu jabar ji nee na bi mu wuy jee xaritu jabar ji nee na xaritu jabar ji ne ko nañ dem daa am benn dëkk bu ñuy dem ñu ne ma topp ci rek di yagari yagari nee na dëkk bi mu ko yóbbu mooy dëkk yi nga xam ne bu ñuy faral ñun di dem ay sortie wala ñu ñu ñu bëgg a changer air ci dëkk yu am géejooy lañuy dem dëkk boobu daal benn dëkk la fii ci senegal boo xam ne ñu bari bu ñuy dem sortie seen xel dafay dem parce que bëri na dëkk yu ñu mën a xalaat pour demee fa sorte nee na foofu la ko xaritu jabar ji yóbbu nee na ba mu ko yóbbee ñu ne boole ko ñaari ñag ay waay ndekete Sénégal mi ngi toj de ay nee ñaari ñag la ko booleel ñu mu nekkal ko ca nee na 4 heures la ko fa ñag yi téye ba 23 heures ku wàcc jox sa moroom nee na ma première fois bi ñag yi dañoo soxor affaire bi dafa metti woon bañ may gaañ mais nee na deuxième fois bi ñu war a defee ñoom ñaar ku ne sa deuxième nee na affaire bi man la mujjee neex soxna Faatu nee na ma bàyyi ñu gaañ ma sonal ma nee na 16 heures ba 23 heures man ak ñaar ñooñu nee na ma ñibbi ma xëy xaw a sonn nee na ma dem hôpital foofu nag nee naa ko yow sëñ bi ba nga demee hôpital est-ce que wax wax nga leen réellement ce qui s'est mu ne ma noonu soxna Fatou li ñemewu ma koo wax nit bi ma demee dama leen a wax rek sama ginnaaw day xasan nee na loolu la leen wax nee na ñooñu xool ko bindal ko garab pikiir ko jox ko calmant mu ñibbi nee na mu sonn lool yàlla dimbali ko mu xaw a tane ma ne ko mais yow depuis benn difficulté boobu rek nga ci am mu ne ma depuis benn difficulté boobu rek laa ci am parfois sax man maa koy bëgg soxna Faatu mais nag dama sonn damaa bëgg affaire bi arrêté ndax nee na damay wéet sama biir kër toog man kese di jooy nee na man xaw ma lii lu ma ci dugal ndekete soxna si bi muy jël appareil boobu di ma ko essayel c'était que pour ma roode ci après mu mun maa manipuler soxna Faatu nee na manipuler na ma jekku na ma lépp lu mu bëgg ci man da koy am nee na des fois ma fippu ne ko dama koy arrêté nee waaye soxna si day bàyyi ba suñu moment d'intimité mu neexalaat ma neexalaat ma ba ma accepté nee na ma soxna Faatu li gën a garaaw ci kaabi bi lu gën a garaaw mbokk internet di déglu leen ma nee na ma kilifa gu mag goo xam ne mu ngi liggéeyee fii ci benn télévision bu siiw sekk na ko moom plus de cinq fois ay mbokk internet yi bu ma leen waxoon turu kilifa gi ndax waa ji avoué na mu turu kilifa bi ngeen xam ne Sénégal moo bari ay faux type ay waay yàlla nañu yàlla suturaal nii nee na ma kilifa gu mag soxna Faatu xam nga ko bu baax ci télévision bu mag fii ci réew mi lay liggéeyee sekk na koog man plus de cinq fois bu ñëwee fay cent mille francs maak soxna si ñu séddoo ko nee na ma soxna Fatou dama sonn damaa seetaan sa émission nettali ma ne naa ñëw ngeen dimbali ma ndax ma génn ci situation bi ma nekk nee na ma soxna Fatou koñ ba ma dëkk dañ ma wekk dañ maa respecté bëgg ma ndax noppi gi ma noppi ak kuul gi ma kuul waaye nee nañ ay bu ñu xamoon li may dundee ñu pare ci man nee na ma soxna Fatou damay damay damay faral di yëngu ci ay woy nee waaye su ma demee di woy woyu jàng yi nee na des fois damay jàng ba mu yàgg ma jooy nit ñi defa ne dama daanu leer nee na musumaa daanu leer li may dund moo ma naqari ma di ko jooy soxna Faatu te lépp jigéen moo ma ko teg mooy soxna si ma nekkal ma ne ko waa sëñ bi yow xanaa soxna si dafa xamoon ne danga koo pratiquer bi nga nekkee xale mu ne ma waaw parce que ndaw si dama am ci moom faiblesse dama ko mës a nettali sama jaar-jaar ndax seetlu naa bi ma ko nettalee jaar-jaar bi ci la commencé di ma ko ak appareil boobu di ma ko defal sama ginnaaw ba sama xel nekkaat ci soxna Fatou ma ne ko sëñ bi lii la moo tax ñun jigéen doo ñu wax lépp des fois am na yoo xam ne yaa ko moom te du yow rek ñun ñëpp doomu aadama am na yoo xam ne yow kese yaa ko moom bu ko partagé ak kii que ce soit loo partagé partage am na certaines faits yoo xam ne garde la pour toi xam nga ne tey kilifa gi li mu ak li mu confier jabar ji moo tax jabar ji xalaat ci xelam au lieu mu dimbali jëkkëram jëkkëram fàtte loolu mu dundoon ba mu nekkee xale mais da cee profito di ci wut xaalis ndeysaan xam ne kii mag la ma ne ko mais yow papa yow xanaa amoo ay mbokk mu ne ma samay membre de famille yi ma jage nga xam ne dañ ma jage torop ñëpp génn nañu àddina nee na ma soxna Faatu gis nga lii nii yow ak sama benn cousine laa ko musa wax ci àddina ñu ne sama cousine bi nag laa ko njëkk a wax ndax boobu seetaana gu ma émission nettali ñu ne sama cousine bi au lieu mu jàppale ma lu dul di ma xàqataay di ma reetaan di ma saboote naan ma keng keng keng di ma rey nee na soxna Faatu nit ki nekk ci problème wax la ay problème am wutal ko solution waaye nga koy saboote di ko mbalag di ko rey ma ne ko mais moom est-ce que euh, siiwalul affaire bi mu ne ma noonoo siiwalu ko mais daal reetaan na ma ba xam ne li mu def ñaaw na mu doog nag naan ma defal lii defal lii defal laa ma ne ko waa sëñ bi yow tamit doo jéem wut solution nga nga génn ci kër googu wala nga tàggook soxna si mu ne ma soxna faatu soxna si bëggumaa tàggoog moom ndax dëgg rek laay wax sama jabar la sama seytaane la xëy na duggal na ma ci tooxi doona mais bëggumaa tàggoog moom mu ne ma benn yoon laa mës a essayé ne tey damay dem ñee na benn nawet la woon nawet nee na bi mu génnee mu génn rek ne tey moom day daw dem yoonam soxna si war ko ba sonn dootu ko gis ndax moom sonn na nee na rek taw bi ubbi nee na di taw di taw di taw ne na ndeysaan taw bi yëpp ci kawam la sotti ba ay 2 heures du matin mooy xam nga rek taw yuy enchaîné yooyu ñu ne soxna Faatu aw ma fu ma jëm parce que aw ma benn mbokk bu ma accueillir te li ma dal tamit am na mbokk yoo xam ne sori nañ mënuma leen koo wax nee na soxna Faatu ba 2 heures du matin jotee aw ma fu ma dem taw bi yëpp taw na sama kaw nee ci laa jàppaat yàlla ñibbiwaat ca kër ga dem toog jàppaat yàlla nee soxna si di ma wutal ay client bu demee ba amul mu boole maag ay xaritam ñu may wutal ay client soxna faatu ma di ko dund mu metti lool nee na damay wér di jooy nee na fu ne laay toog di jooy soxna faatu te nee na su ma fippoo ne damay bàyyi nee na ndaw si day bàyyi ba suñu moment intimité encore mu naxaat ma jàppal ma ci point boo xam ne su ma waxee dama naan waaw mu waatloo ma après ma jógaat def ko te nee na parfois sax nee na moom la affaire bi di neex mu dem def ko waaye nee na da cee bëgg a génn mbokku internet yi jàppale leen waa ji li ma ci gën a metti nag mooy laa ilaha illallah ci yàlla cay ay yàlla ñu yàlla dolli sutura imagineel kilifa gu mag gi mu tudd nekk ci télévision bu mag fii ci réew mi sekk kook moom plus de cinq fois waaye yéen sama gars yi fu réew mi jëm fu ñu jëm pa bi jàppale leen ko nee naa ko léegi lan nga bëgg moom li mu wax leer na nee na lenn rek la bëgg ñu jàppale ko ba mu génn ci situation bi mais bëggu la divorcé ak kii di jabaram parce que am naa moom ñaari doom mais nag ñu jàppale ko ba ndaw si bàyyi client yi mu koy wutal ndax moom sonn na ci nee na nag xamul ndax ndaw si da koo liggéey am déet ndax nee na moom ndaw si moom dafa am ci ndaw si faiblesse boo xam ne ndaw si lu mu ko wax loolu lay def nee na danaan ko jógal wuyu jil diw nee na ma jóg wuyu diw nee na su ma wuyu diw diw ay client la may wutal nee na wala ndaw si xëy ne ma tey client sàngam ak sàngam dina ñëw bu ñu ñëwee heure tel nee na bu ñu ñëwee nee ma dugg ca néeg ba ndaw si toog ci saal bi di ma xaar ma sekkal ñooñu ba pare nee ndaw si encaissé xaalis bi ñooñu dem nee na sax dañ ko doon def ci digg bi waaye nee na ndaw si bu ko neexee li ci ëpp moo koy jël jox ma si as tuut nee na ma xoolal soxna Faatu ku am 62 ans di dundu lii metti na ma ne ko yow lan moo tax gars yi di la wut si da jantal wala danga rafet wala lan mu ne ma yàlla xam na ne nit ku tuuti laa nit ku ndaw talu ma neen man kay xaw ma lu tax gars yi sax di ma wut si ma ne ko yàlla baax na comme nag woote nga wàllu ñëw nga ci émission nettali nee nga it bëggoo tàggook sa jabar parce que da am faiblesse ci moom mbokku internet yi dinañ la dimbali nuñ la dimbalee ba nga bàyyi li ngay def mais nag sëñ bi pour nga bàyyi li ngay def il faut que nga séparé woog ndaw ndaw si benn moment mooy maanaam amoo ku la héberger ba tax munoo dem fenn bu la mbokk internet yi mu nee jàppale wutal la foo nekk ba nga ba ndaw si dootul la gisati ba di la wutal ay client nag wax dëgg yàlla papa war ngaa mën a nangu loolu pour ñu trouver la sa solution comme nee nga sonn nga da ngay wéet di jooy xam nga ne kilifa buy wéet di jooy ndax li ko dal moo metti ay waaye man Sénégal nag man jommi naa de yéen est-ce que jommiwu leen yéen tamit ah man de jommi naa ay waay àddunaa ngi bëgg a wëlbatiku yow jigéen ak ni mu fiiree yow nga xam ne sa moroomu jigéen rek bu laalee sa jëkkër ngay tëb di dal ah? boobu sax mun na mu nees na koo comprendre mais yow ay góor ngay wutal sa jëkkër client ndax alalu àddina sama gaay ay waaye fu ñu xaalis jëme fu ñu xaalis jëme xaalis lëmbe na réew mi de sama gaay ñu naan tuuti non tey moom dëgg yàlla dama jaaxle de jaaxle naa torop nag tey bii moom maa ngi koy doog a dégg nag jigéen buy wutal jëkkëram ay clients pour ñu tëddee ko mu encaissé xaalis bi aaxiru zaman fin du monde mbokk internet di jàppale leen ko ak képp ku ngeen jàppale jàppale leen paa bi mu génn ci situation yi mu nekk amul ay mbokk benn cousine la am cousine bi da ko doon reetaan indi na ko émission nettali wutal leen paa bi fu mu nekk ngeen dimbali ko paa bi génn ci loxoy ndaw si parce que paa bi nee na dafa bëgg ndaw si waaye bu génnee ci situation yi lay xam ne mosul bëgg ndaw si ndax ku lay teg lu bon mosoo koo bëgg yow sa jëkkër wax la jaar-jaaram nga war kaa mën a dimbali mu fàtte histoire u démbam lu dul nga profitoo ci di ko commercialiser pour di ci wutub dërëm nga toog fi nga toog di jaay doomu jàmbur xam nga ne lii naturelul ku am 62 ans nga yërëm ko nga yërëm ko xanaa danga bëgg rey kii baax na gars yi mi ngi noonu dimbali leen kilifa gi ndax man tey ji fii laa ci yem di leen jaajëfal bu baax a baax paa bi daal nee na solution la bëgg insisté na nee na solution la bëgg bi muy wax ak man téléphone sama àddina dafa tukki solution la bëgg jàppale leen ko yàlla dimbali ko mu génn ci loxoy ndaw si nga nañu yàlla dolli sutura aar ñu yiir ñu sàmm ñu ci barke Seydina Mouhamed di jaajëfal suñu DG Seylatir Oumar Sey ma madame Diouf la directrice ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Kanasatu la coréenne moo nekkoon na ci caméra bi ñu ngi koy ziar di ziar Faat Ndaw ak équipe technique bu Thiès Info yëpp di leen jaajëfal di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali ak yeneen i astuce d'ici la portez-vous bien et bonne suite de programme ñu jeexal suñu émission ak suñu kaasu café yëkkati ngeen sama gaay tey moom sama xol bi neexul moom mhm.